alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu TV ñu ngi wax euh, beneen yoon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni nga xamante ne noonu la ko Kossy TV tàmbale woon démb fële ci Medinatu Cheikh Ibrahim tey ngeen ànd ko ak yéen si direct bi si teewaayu xalifatu saahibul faydatu tijaaniya Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahima Niass si teewaayu Seydiya Moolaya imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé tey nag ñu fas yéene euh, jeexal suñu wàllu liggéey bi fii ci kër gi ndax ku wax alhaaji Barham bu kërama jibel fii ci néegam bi fi la recevoir noonu kalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi si jamono yi passé njabootam kenn si ñoom ñu jël ko moom tamit mu joxe ay kàddu euh, témoignage am si kilifa gi waaye mu jëlee ay kàddu tamit jox ko taalibe yi nga xam ne jóge koo nañ ci gox yi fasantikoo ah, asalaamaaleykum yoon mbooleem ama alaaji Amadou Niass doomi sëñ Barham doomi Cheikh Sëriñ Baye Niass alaaji Abdoulaye Niass maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale liñ bokk yépp ndax yàlla moo ñu ko joxoon waaye yàlla moo ko jëlaat mooy wax toujours ne sëriñ bi kenn ku ci ne mën naa waxtaan ci moom kenn ku ci ne mën naa wax ci moom ndax waxi démbam mooy waxi tayam waxi subaam mooy waxi gannaaw subaam bañ koo xam bañ xàmmali ko ba léegi kaddu gi miin a dégg ci moom rek kàddu googu la ñuy dégg ci moom toujours toujours damay wax ne sëñ bi amul dénkaane lim dénkaane mooy li muy wax ci tànt yi di ko wax ci néegi moom la wax rek ba muy dem yàlla rek laa leen bàyyee yàlla rek laa leen bàyyee nee na sama pays Cheikh Sëriñ bi yàlla rek laa ci wóolu maa ngi koy bàyyee yàlla di leen bàyyee yàlla ndax moom loolu mooy waxam démb mooy waxam tey demam bi nag xamoon na ko ndax def nañ ci ay te bëgg pour mu dem faju ay dafa tanon ne na dess ci lalam bi ba yalla ñew ak mbiram lolo tax ba waxe waxee la ñak yaakar xamne yalla ñew na ba ma demee di wax ak mom ah, mom ku ko bëgg nax dang koy nax ci Baye Niass ah, ma ko señ bi docteur yi dañu wax ne liñ la monteel ni fi ak 30 minutes da fay jeex ta bu jeexé oxygène bi do am lo noyé pour bo fekkente ne man nga dem Kaolack pour ñu motali fajj mi mu ne ma dedet jarul jarul dem fenn lepp lu ñuy def nañ ko defee ci sama lal bi wa ma ne ko ma nax ci bàyyi comme mom tousu boko ko nax ci bàyyi nga nax ma ko ñu de moom na faju te gëmon na ne docteur yi ay jambar lañ mu ma waaw dëgg la waye nak waye man bañu faju ndax garab yi ngeen ma jox yëpp ma ngoy naan waye nak dama bëgg rek dess fi dess fi ni balu yalla ñëw rek gëreem na moom lool nak man bobu la ñak yaakaar ndax ku daan dem di faju ji Euh, tey nga ne jéggal naa nit ñi toog boobu xamoon na ne lii day ñëw mu bañ a sonal kenn ci kaw lalam bi la ko defee ci dem bu sedd boo xam ne euh, ñun ñu toog sax sentiruñ ko yéguñ ko sax dañoo toog rek ndeke ndeke dem loolu nag sant yàlla la damay wax toujours ne sëriñ euh, benn kàddoom rek la ba fi sëñ yaa ko wax léegi ba fi xalifa bi ñëwee lan la ko wax daf ne ko lépp luñ togg rëndee ko bàyyi ñun danañ ko lekk waaye lépp loo xam ne dañ ko togg ñu xool ko rëdd ba safut baay ñu teg ko fa mooy li xalifa bi seede léegi taalibe baay rek la bëggoon ñu seedeel ko tëddaayam bii tey xamoon na ko def na woon bu génn àdduna liñ ñu koy seedeel mooy nañu wax ne alaaji baram mi taalibe baay la mu liggéeyal yàlla liggéey boo xam ne tund bi yëpp seede nañ ko ci tabax daara ci tabax école ci tabax université ci tabax dispensaire bu nit ñi di fajoo ci tabax marché ci tabax rajo boo xam ne tey jii nii képp ku am soxla ñoo waxee fa loolu mu mu def projet boo xam ne ñetti téeméeri kër ak fukk ak ñett may ko jaam yàlla yi ñu dëkkee ko ko dëgg-dëgg bàyyilut fi kenn dara kooku loolu la bàyyil yàlla loolu la bàyyil njabootam gi bàyyilu leen ay dërëm yu ñuy xëccoo bàyyilu leen ay dinaar yu ñuy xëccoo waaye lim leen bàyyee moo yàlla mi nga xam ne moom la doon moom la defoon bankam di ko versé yàlla moom nag ñu bàyyee ñu ngi ñaan yàlla mu taxawul ko njabootam ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne liggéeyal na ko yàlla yàlla na ko yàlla fay ci njabootam lepp lu mu liggéeyal yalla yalla nako yalla fay ci njabotam ci barke yonent sallallahu alayhi wasallam ñi ngi gëreem yeen seen taxaway ndax wax deug yalla gis nañ ne luñu xewle da ngeen ñew teew bokk ak ñun muy Kossy TV ñi ngi leen di gëreem bu baax di ñaan yalla eh, lii moy seen ordre ak seen ki bi ni yalla dem ba nekk télévision bo xamne ñepp dañ koy sétane ci aduna bi yépp waye ku liggéeyal wal wi yalla da nga jariñ da Baye waxon na la ci naqadamu ni naalul murada benen benen yoon mo waxone euh man yuhibuni wa man yarani fi jannati xuldi balaa buxtaaniin benen yoon mo xne bi qadr ma tuhibu tanal kem ni nga bëggee noonu ngay amé kon loolu deug deug ñi sant yalla di xamné ne liggéey yi nga ni liggéey dara du ci naax saay surtout liggéeyal ngeen ko xamné mom amuton bo boo ñëwee ko señ baram diw sa talibé mu né man awma talibé talibé bay lañ bu tarbiya nit bañ ne dañuy formé daara moy ne ansaaru diin amuton dara lo xamné té lepp na bu ko neexon mu oté ko ndax mom la bàyyi ben bis sax waxna melni kuy kañ waye mu ne damay sant yalla mu ne man la sëñ barxam man mi bàyyi jox ndigal 1973 la Baye ñëw jox ma ndigal man maay ki nga xam ne maay doomi Cheikh Serigne Mbaye Niass doomi Cheikh Serigne Mbaye doomi Alaaji Abdoulaye Niass loolu mu wax ko muy wax joo xam ne wax ju wax ju wax ju wax ju wax ju am teggin la waaye wax joo xam ne gu ànd ak maqaama la ndax cër bi ko yàlla jox tey jii nii ba doon xool ñi nga xam ne ñoom la Baye joxoon ndigal direct daanaka tey jii nii moom moo ci desoon moo ci desoon waaw buy wax da euh, euh, waaw mhm. Mhm. waaw mhm. dëgg la loolu da ko donn ci da ko donn ci baayam ndax Cheikh Serigne Mbaye Niass moom la Baye waxoon ne moom mooy làmmiñu taalibe yi daf na ko yaay jiite sama taalibe yi waaye yaay sama làmmiñu taalibe yi muy wax ci turu taalibe yi heure boo xamee ne siyaaru jot na wala programme boo ne Baye dafay dajale taalibe yi Cheikh Serigne Mbaye Niass mooy wax ci turu taalibe yi Baye wax ci turu bi loolu moom la donn moo tax moom kàddum gi ah, gis nga lépp loo xam ne dafa am cosaan da gis ne dafay feeñ siaré mën na bari nit ñi mën nañu wax waye bu sëñ baraam yëkëté kaddu da nga xamni nit ñi mom lañ doon xaar loolu lan moko waral moy dafa am ciosan dafa am fondement damay wax né programme yi bari na ang koy jall ci cosi TV programme yi bari na ñi defal ay siaré bari na ben siaré la bay autoriser ci kanamam né nañ ko defal mu nañ ko defal muqaddamam defal ko domam waye defal ko mbokk mu Cheikh Serigne Mbaye ben siaré ci kanam bay gannaaw Baye Niass bu ñu siyaaree kenn rek lañ ci teg mooy Cheikh Serigne Baye Niass siyaare ba lan la wax def na alaaji Abdoulaye Niass mi doomi Baye Niass di xalifaam alaaji Ousmane Fati alaaji Ousseynou alaaji Assane mooy mooy mooy imam Assane hmm? ñooñu la Baye Niass yebal ak Aliou Diagne ñu lay Baye Niass ak Seydou Aliou ne leen dem leen ngeen siyaareel ma Cheikh Serigne Baye Niass siyaare bi archive la yaakaar ko am ñëpp a ko am keroog Cheikh Serigne Baye Niass keroog dafa dafa xal ba nga xam dafa ne lu ngeen bëgg mo waxtaan ci jëri ji wala ci jaw ji ngeen bëgg mo waxtaan waaw ci jëri ji wala ci jaw ji ngeen bëgg mo waxtaan mu nekkon ko xamne ne euh, doomi Alaaji Abdoulaye Niass la doomi Alaaji Abdoulaye ko xam-xam ne sëriñ la waye mu jaay lepp lepp lepp lepp lepp jëne ko ak talib ko deug deug lakki bay Niass la waye bay Niass mo wax ne domam la kon ñu ngi sant ci lolu di ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq amna yalla yok ñu ci ak ci batin ci barke alquran yàlla barkeel njabootam li mu fi bàyyi liggéey yi mu fi bàyyi yëpp suñu borom àggali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf mbokk jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñu jàkkaarloo kenn si njaboot gi Seydi Aliou mu Cheikh Serigne Mbaye mu Cheikh Alhaji Baram mu Cheikh Serigne Mbaye Niass ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax liñ bokk di ko jaale um-, umma islamique yëpp ban kàddu nga am pour jox ko taalibe alhamdulilah asalaamaaleykum ñu nuyu mbooloo mi yëpp ci turu suñu mag suñu kilifa Cheikh Baye sëñ Barham mi nga xam ne bés ni tey mooy suñu sëñ Barham di jaale ñëpp di jaale surtout xalif Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom mi nga xam ne taxawaayam wax dëgg éem nañu éem nañu lool sëñ Barham mbëggeelam ci Mawlana Cheikh Ibrahim kenn nattablewu ko waaye jëfi xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim loolu feral na suñuy ronxañ gën na dolli suñu yaakaar xam nañ ne Mawlana Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg ku jar a àndat la ku jar a liggéeyal la ku jar a topp la loolu ñu ngi ciy sant ñun nag baaxoowuñu ay wax ni waaye lu ma xam daal maa ngi jébbal sama njaal ñëpp di sant kilifa yi di sant di nuyu yi tamit xalif Cheikh Sëñ Mbaye Niass tey Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye nga xam ne ñun ñëpp njaboot Cheikh Baram ànd ak Cheikh Baye suñu mag ñu ngi laxasaayu nekk ci ronam di déglu ndigalam fas yéene topp lépp lu ñu man bàyyi lépp lu mu tere ngir yàlla ànd ak moom ci yàlla loolu lañu ñu sëñ Barham doon digal loolu la xam loolu lañu fas yéene def di ñaan yàlla mu woyofaral ko yan bi defal ko tawféex ci lépp loo xam ne naal na ko ci liggéey Cheikh Sëñ Baye bi ak ci taxawaayu Cheikh Seydou Mbengue ci pays Moran Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum jërëjëf macha allah kàddu yi gàtt na fasaana ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral leen sàmm leen fam leen féete woon yal na Mawlana Cheikh Ibrahim mi sëriñam féete leen fa kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi joxante ak yéen daje incha allahu rabbi ba beneen yoon jërë ngeen jëf derramar. Hoje viver.